jaar ci gaal yi ñëw fi ñëw ñu fi ci ñëw ñëw nii rek géej gi bu fi Sëñ Tuubaa jër woon ku fi jaar da ngay faatu ñun ñu fi jaar ñëpp xam ne ni fii du jaaruwaay waaye Sëñ Tuubaa moo ko tàggat ban man fee jaar ñëw liggéeyal ko war Sëñ Tuubaa nag rombul nga tayle sa bakkan bii te bi nga ko tegee ci géej gi ba ñëw li nga njëkk def sa xel am na bés boo xam ne ba nga tëddee ba guddi yëngu na yëngu goo xam ne sa xel demu ci lenn lu dul woo sëñ Fallou boo ñëwee ba ci daara ji amagoo këyit dangay am Pastef Pastef bu la gis sëñ Tuubaa moom gaa yi amul këyit ñëpp kenn mënu leen ci ak joxe waaye ku ci jekk yoru këyit yor contrat boo ko xam ne sa waaye xat-xat yi daa bari fi ne damaa bari yitte damaa tënku loola tënk sa bopp gënoon ngaa tënkukat teewloon da nga daan ñëw ndax bëgg a tinkeeku nga tinkeeku dem tënkaat sa bopp yow maam ñu tënk la nga tënk sa bopp nag daa bokkut kon nañ jaajwaat suñu bopp te laxasaaywaat te gën a jàpp liggéey bi te gën a ne ci xasida yi mooy defaru gi de jëmm yi toog ci jataay bi de koo ci xool xam ne nii maanaam leeru xasidaa ngi jolli ci kanamam li gaa yi rawe gaa yi nag maanaam ñu ñi leen ko rawe ñoom gisuñu ko fi mu ne nii lii leen gars yi di jiñ naan gaay yi dañoo seex ak gars yi ña nga ca kaw ak dañoo bëgg àdduna ak seen sugg sugg ji yéen yëgu leen loolu ñoom dañoo ne seen gannaaw di ko gis ab garaat la suñ Tuubaa bu la takkalee garaatu liggéeyal ko yow mi ko takk doo xam garaat bi maam ñu nekk sa gannaaw ñoo gis garaat bi jàpp ni da nga koy ndamoo wala da nga koy xeexe wala da koy yëkkati ko fekk ne yow yëgoo loolu loolu nag mooy murul bu defaru kon nañ gën a laxu ci liggéey bi wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf xam ngi sàkku rek nga fàttal yi nga xam ni képp ku bëgg a tàbbal barkeeloom ci la koy jaarale bu ko defee incha allah rabbi ñu door a tëj xam naa si après dinañ ko eh, jàll ci eh, incha allah rabbi ci écran bi bu ko defee ñi nga xam ñooy topp jotaay bi rek dinañ ko gis incha allah rabbi. xam naa ne képp koo xam ne nii da bëgg a xam ci lu jëm ci wàllu coordination bi mën ngaa woote ci 643 75 69 21. ba tey numéro boobu ku ci woote bokk na ci xasida barkeel yi nga xam ni defaroon nañ ko numéro boobu mi ngi ci muy xasida mottali bu fooy seen yi nga xam ne nii maanaam li tax ren yi ñu def ko sax def ko xasida barkeelu mooy ndigalu sëñ Tuubaa li ci Seex Muhammadul Muntaxaa joxe ndax sëriñ bi maam Thierno da ko leeral léegi xasida gi bi ko sëñ Tuubaa di bind maam da ko bind woon làkkub Tuubaa mooy kaaraange ga sëñ maam Thierno wax ko léegi nee na ndox mi ma nga ma nga de dépare Chica Chicago ñëw Siin ñëw France ñëw Italie ñëw bërki démb Valence pourtant ñun Touba mos nañ ci bu ñu fa àtt suñ bopp maam dund nañ ci lu jafe ba sëñ Touba maanaam war nañu ci ni Cheikh Mouhamadul Mountakha ab liggéey boo xam ne nii da ko am yéene def ko barki démb rek dama ko soñ suñu daara jën nag ma ne murit na ngeen waaj te jekk sëriñ bi daa jekk de te moom daa pare te daa waxoon ne ku dem ma dem ku demul ma dem te moom ma nga ci yoonu te ba léegi xaaruñu nag man naa dox tuuti nag ab diir ñun demuñu mu dëpp di ñu jël si comme sëñ Saalu na mu bare woon yërmaane ci ñun waaw kon foofu la liggéey bi nekk ñi ngi sant bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh